kon sëriñ bi nag kàddu yi ma waxoon moom laa fas yéene jotale kàddu yi nag ñetti mbir rekk la bu jëkk bi mooy li la tax a ñëw fii bu ñaareel bi wax na ma ci làmb na ma li nga xam ne jëf na ko ci dëkk bi yow mi dox ci diggante na ko leeral ba ñëpp xam ko ba ñetteel bi nag mooy sa digg moom ak lim jàpp ci yow kon fi ñu tàmbalee mooy bis bi ndax bis bi ni nga ko waxee rek dama ci dellusiwaat lépp lu nga am rek moo ñu ko may ndax bis bi boo wutoon tey Sénégal réewum nasaraan lay doon te Sëriñ Tuubaa wax na ne law tanassartu la daxaltu naara wal iyaas billahi taala kon bis bii la suñu kilifaa bu baax la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu dëgg-dëgg fête d'indépendance ndax loolu tam da ko indaal ndax bu amutoon tey colonialiste yi seen aada ak seen culture ak seen diine ak seen gëm-gëm moo fi sax kon nag Serigne Touba dafa jaayante ji ak boromam yanu yan bi wax ne astaxlisu li nafsi boolewu ci kenn dem dëkku natt bi indi xéewali boole ci ñëpp. dina ñibbi fii لأوصل الذي أريد lii بي الوراء يا مهنيا عن faai اجعل وجوهي الى قومي سعادتنا وتكفينا يوم جمه الخلق نيرنا كون من بني لجيلي بعدم لجيلي أن تكن يبالو كن تا كين يوبالو كين لا تا دولي موحنا عفوت عن الاعداء ترا لي وشيما نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع موحنا بما أكسر لم جك وخ موجد الناس منور تيال من يخمنا دوحنا سمو ديجيون بمون مارور كون موم لكو تخونا دم ما يخط لخيط رسول الله صلى الله عليه وسلم نخ بمنا تأيب دم وحنا لولا القرآن وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم waa masaalihul iyaali wala ibaadi maa bittu fi dunya ala rasul waxida ñaana bu dul koo nag alxuraan ak liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak njëriñal jaam yàlla yi ak nit ñi nee na doo ci àdduna kon Sëriñ Tuubaa loolu mooy la ko taxoon a ko yéen ko faye loolu nag damay siy nettali ñaar benn seere bi. Cheikh Samba Abdou moo ko wax ab soppe la di wàllu wàllu wàllu bokk ci nit yàlla yi dafa wax ne Cheikh Ahmadou Bamba mooy jëm jaamu yàlla boo xam ne dafa sonn ci ñaan suñu borom lépp ba suñu borom fay ko lépp soosu mooy jenn seer si yeneen ñaari seer yi ci des itam benn bi dafa am benn naaru mursin bu wax ne lakinnahu xasanaatun حنا لو قسمت يوم الجزاء بين اهل الارض ما احترقوا دافو خني سيرن توبا لم ام تي ماي اي ليكو سيرن دون ديفال تي خيون بون كو سيدلي وون وا سوف كان كان كون كان لو تي لك لي واخ جي ري ري نا بوكو سيرن توبا ديغي دافو واخ نيكو وا سوف رنجا خاي وا اسمان بون نتي بارو دي لك ما سان سير سي بنال سير با تي ديس سيرن بي دافا نيك تي موريتاني mu agsi ci barab mu yëkkati ko teg ko ci kaw bu waxtu julli jotee mu jiite leen te loolu baaxul ko woon foofa ñëpp nag di jaaxle di kirite gi ndax ñu ngi baaxoo lu mu ñëwut faaw ñu am ca jaaxle mu naan lu tax kilifa gu mag gii di jiitaloo pourom bii ndax ñoom leen daa nit ku jóg bi ko sonalee ci wax ji waxtu julli jot mu ne leen ne ñëpp yem ci seen i seen kër bu kenn julli si bu kenn julli si waxtu mu daldi wax ba waxtu jotee ñu daal di nodd ku kàbbar ci si biir kër rek Sëñ Tuubaa feeñ ci sa kanam man la li nga taxoon nga jiite nekkaloon itam am na ku ñu wax Antoine Martin Arthur Leslie ñëpp dégg nañ ko. commandant de cercle la bokkoon ci ñëpp xam-xam ñoo boroom ko njaareem mu nekkee ak sëriñ bi ay at diir bu yàgg dañ ko utilisé woon léeg-léeg day xotti sàkketi njaareem bi di bet sëriñ Tuubaa ngir xam ci lu sëriñ bi nekk ba mu fa nekkee at 1918 ba muy dem mu génne benn rapport wax ci lu bari ci sëriñ bi tagg ko lool wax ci moom lu bari waaye fa mu dafa wax ne Cheikh Ahmadou Bamba am na quwa fitria mooy force bu ko suñu borom bindaajal boo xam ne doomu aadama mënta fiir lool lu doon ndax mësus ko gis nit ñaare itam ni ñu bëgg gi ñu ko bëgg itam ëpp na ba kenn mënu ko natt ñaare jural na leen lépp lu leen digal ñu def ko te duñ ko sañ bañ te duñ ci xalaat ñaare itam nag yàlla suñu borom defal na ko jikko joo xam ne ñoo ko jëkk kenn mësu ko ci am nee na kon nag moom du ab jullit wax na ne yonente yi ak shuhada yi ak saalihin yi buñ del siwaatoon ci àdduna dañuy ñeer sëñ Tuubaa ci jikko jikko ko yàlla defaral ndax nee na jële ja jiitu mooy xàmmewut ab sopp ak moom nee na ñëpp lay jël aw yiw di leen ko jëme nee itam maa ngi wax ne ñu màgg ñooñu ma tudd nee na li ñu màgg màgg ak li ñuy siiw siiw genn wàllu doole ji yàlla jox Serigne Touba amu ko woon te teew ñu ngi woon ñu ngi doon déclaré guerre sainte Serigne am doole ji ba noppi di woote jàmm ba ci des nag dafa am benn tubaab boo xam ne mu ngi ci agsi yi dafa ñëw ci sëñ bi ci jaareen fekk dañ koo yabal si xam borom xam-xam bu mag la mu wax yéen sëy ne ko damaa soxla rendez-vous ci sëriñ bi waaw xalaat sama yëngal sëriñ bi ne ko na ñëw ñu dikkee moom ay fan di déglu sëriñ bi ba bi daal wax bi sàngam ne ko am naa ci ndigal sama borom na ñëw ba mu agsee sëriñ mu wax sëriñ bi ne dama lay bëgg a laaj laaj yoo xam ne li ma laaj lépp dama bëgg li nga tontu lépp mu doon dëgg sëriñ bi ne ko man du wax mukk lu dëgg mu ne ko li ma lay jëkk laaj ñaata yonente ñoom sëriñ bi ne ko faq ka dum mooy téeméer junne ñaar fukk ñett mu ne ko ñaata ñoo ci wàcc été rek sëriñ bi ko lim bi mu ne ko kan la sëriñ bi tàmbalee lim ba àgg ci yonente yàlla Moussa mu ne ko yonente yàlla Moussa du yonente sëriñ bi na ko ne ko kàcc ja sëriñ moom dëgg daawu ci Moussa interfere bu mu àndal xaw a nakk-nakkal sëriñ bi baamtuwaat ko ne ko wax ko ko mu nakk-nakkal fekk sëriñ Massamba bu foon sëriñ wax ko Massamba wax ko ko sëriñ Massamba wax ko ko tubaab bi nga tekk ba ci yàgg mu ne ko sëriñ bi donc li gën a gàtt sax fii ma toog suñu doon def na woon mooy Moussa def na ngay xaaroon na tubaab bi ne ko dafa doon ku ku bari xam-xam ne ko Moussa de ba ko alagee suñu borom tegoon na ko ci ay daan suñu tubaab ne ko suñu borom dama tegi daan fi mu waxee loolu rek sëriñ bi ne suñu masamba sama gannaaw mu weddi ko léegi suuf si dugg ci biir suuf si mëbb ko léegi tubaab bi daal daw kon ñoom xamoon na sëriñ tubaab kon لولا ما يدير سي توبا لب نك فاد نكو لي جي بغي واخ لب تام بو ديما سي مات لو فوسيني نيانو نا تا بوبو سي مبار مبارم خاد لا نك دك بي دار لي سي ما ارا بي الله ما جاكالو سي بو لب مو تي تام نيك واجب له الخير من الجهات الست وفيها عن الافات نك ما خيتل موالام لي نجاري سي ادنا سي جيب ادنا كو توبا كون لو فا جيس رك نيانو سي توبا بي دغلا كون نك original sëñ bi wax na ne yéene ji nga xam nga am nga ko ci dëkk bi te jëf ko fi loola naa ko leeral ba ñëpp dégg ko loola nag bokk na ci li ci jiitu mooy Touba danaa taw ndox mu bari mbedd yëpp di waaye liñ ci jëkk def mooy def nga ci lu mat fukki milliard loola jëf la joo xam kenn ko ëdde ci wàllu tëli itam def nga ci lu bari ba jiitu ba la Cheikh Sidi Moukhtar magam ju tedd ja santoon diggante tawféex ba daru ma naan def nga ko biir dëkk bi tam def nga fi ay tëli yu bare bare yoo xam ne ñëpp mën nañ ko seere boo demee ca Masaalikul Jinaan dangaa waxoon sëriñ bi ne ko xam naa ne jumaa ji de taalibe yi ñoo koy defar waaye nag li nga xam ne bëgg naa ko ci barkeeloo mooy lépp loo ma ci sas sëriñ bi daal kon li ma gën a defar ma tëli ak assainissement yi ak lamp foofu foofa tam def na fa lu ma juróom-ñetti milliards yu tegal loolu xam ne kenn mënu ko weddi beneen ba ci dolli ko fii ci dëkk bi naal nga fi hôpital boo xam ne ëpp na ñeent fukki milliards loolu itam jëf lu juri joo xam ne ñëpp war nañ ko xam ba ca desaat nag mooy sa suuf bi ñu gën a rëy mooy autoroute Ila Touba bi nga xam ne. keroog ba ñu koy tàmbali Cheikh Sidi Moukhtar moo ànd ak sëriñ bii ak mboolem jëloon sëriñ Tuubaa ji ñëw teg xeer ma loolu itam jëf la jox ne kenn ñëwatu ko kon nag nee na ñu ngi lay sant bu baax ci loolu di la gërëm di la xamal ne la nga ñu seeni ndax màggal kenn boo ko sëriñ Tuubaa santaane Cheikh na Moustapha bàyyi ko ca nam meloon Cheikh Mouhamadou Fadel da ko woote fii ci dëkk wax ne képp yaakaar sëñ Tuubaa na nga ñëw nit ñi nag daa ñëw di way fas ñi dugg ci saret ñi dugg ci camion ñi dugg ci saxaar kon bu demee ba diggante Tuubaa ak Ndakaaru ñu di ko daw lu ëpp waxtu tuuti loolu kon na nga xam ne tàbbi gi ci biir ñaanu sëñ Tuubaa kon nag leera lu lay xamal ne la suñ kilifa bu baax kay Cheikh Abdou Lahad Mbacke dafa waxoon ne sëñ Tuubaa wax na ni wa xaysuma ahsanatul insaanu ilayka fahmatu bila tawaani saa su la nit defalee jëf bu baax na nga ko sant ca fasaasa tam bu ko yeexee daana wax itam ne saa su lay defalee lu ne fànn na ko sant ba ñëpp ko ba ba ca des dafa waxoon ne lii ki fi def mosu fee taxaw ba indi kon nag buñ dee ay bor ñoo ko war a wax sëriñ bi nag nee na kon ñu ngi ko ci kàddu yooyu di la xamal ne jëf jëf gis nag Sëriñ Tuubaa gis na ko sa digg moom nag dama koy tënk ci li ma ko waxee te dama ci dolli benn baat damaa wax dama sa digg moom dafa yàgg ndax naka jekk xam nga ak cofeel sa digg moom mu am ko ci yow lool waaye yow itam nga fonk ko def ko waajur def ko kilifa def ko sëriñ nee na lool nag démb la woon jëkk tey nee bu ko fi yàlla tegee itam mu fi Sëriñ Tuubaa nee na ji nga am ci moom da koo koy yokk ba mu xam ko ndax li ci firnde mooy ba fi toogee ba léegi amul jëmm yitte joo xam ne waxtale ko la ko ci man ma wax la ko te di defoo ko lu koy jotam moo tax lim moom mu di waxaat léegi nee na ma cant yi na leer nañ te mu ci desal dara nee na nag kon na jàpp boobu moo ko jàpp ngir yàlla jëm si tuwa nee na xam na ko moom nag léppam yàlla la léppam suñu tuwa la nee na kon nag ñu ngi koy seereel yàlla mi nga xam ne moo sàkk lépp te lépp moom di ko seereel itam suñu tuwa mi xam ne nee na keroog ba mu fi ñëwee dinaa ci del siwaat mu ngi ko seeral sëñ Tuubaa di ko seeral tam di wërub sëñ Tuubaa ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam ba ñëpp war ko xam nee na itam mi ngi ko seeral sëñ Tuubaa mi ngi ko seeral taalibe sëñ Tuubaa yi nam ko jeexale nag nee na keroog ba mu fi dikkee daf laa wax ne la daf laa wax ne la daf laa wax ne la keroog ba ñu fi ñëwee daf naa wax ne demal ci borobu Sëñ Tuubaa ba moo la ko wax ci lan moom nga ñaan lu fa te te fas fa la nga bëgg Sëñ Tuubaa daal ci dimbale moom nag nee na kon ci tënk daal nee na bàyyi na la ak Sëñ Tuubaa dénk na la